yàlla barkeel yëngut yi ñi ñuy yor seen métier di liggéey yàlla barkeel ko luñ ci am yàlla nañ ko muurloo ñi nga xam ne ñoo toll ci liggéey bëgg a tekk yàlla jox leen liggéey yu barkeel ñi nga xamante ni ñoo toll ci njàngit yàlla mottali seenum njàng te lañ ciy séntu ci njariñ yàlla defal leen ci lu kawe seen jort xale yi def examen at mi yàlla leen jig ñi pareegul yàlla nanu at meeg jàmm ñi seen mbir demee ne leen yàlla leen jox xolu muñ te may leen tey góor góor lu xaar seen wërsëg ci barke sidna muhammad sallallahu alayhi wa sallam yàlla na yàlla jubal suñuy njiit moo xam ñi jiite diine ji wala ñi jiite pénc mi yàlla def ci ñoom maandu ragale yàlla ak jub ak yërmande def ci askan wi jub juboo ak jubal ak nangu kilifteef ak dégg ndigal ci barke sidna muhammad sallallahu alayhi wa yàlla na yàlla yërëmal ñu suñuy way dawlu yéega leen ca barzax sayduna muhammad ma annabiina wa siddiqin wa suhada yàlla boole ci euh, al imam suleysi li nga xam ni mooy imam alxaram al makki yàlla ko yàlla teeru ci yërmandeem yàlla ko alxuraan teeru ñuy ñaan yàlla su nawet bi yàlla ko yàlla yeggaleeg jàmm te lépp lu ci ñor yàlla nañ ko muurloo te li fi des ci taw yàlla nay naatal suñu tool ba ñu yàq suñu alal ñu yàqule ci nawet bi yàlla yàlla wutal leen luñ ko fàttee ci barke Seydina Muhammad e, yàlla jox leen la xolu muñ ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yàlla sàmmal ñu suñu diine suñu ngor ak suñu mbokk yàlla bu mu xajam àdduna yàlla bu mu xajam alaaxira mbas mii ne ci àdduna bi yàlla na ko fi yàlla jëlee lépp lu ci waaye laxas ci ay pexe yàlla na ko yàlla nasaxal ka koy fexe yàlla ko yàlla jaaxal ba dootul tal la muy fexe ci kàttanu borom bi subhanahu wa taala bi nga xam ne laa la wala quwwata illa bi ñu ngi fàttali sunu bopp di fàttali jullit yépp comme niñ ko waxee woon dañu nekk ci safar mu doon weer woo xam ne waxoon naa leen muy weeru ceddo ca ca ca ca jaahiliya doon ko defoon weer woo xam ni weeru gaaf la weeru e, umu weeru bokkaale moom lañ ko jàppe bu jëkk waaye gis nga lislaam bu ñëwee lépp lu baax lu ñu nar a yàq rek da koy defaraat jox nit ñi lañ fa daan def ci lu jaaduwul mu teg fa lu jaadu moo tax mag ñi loolu lañu ñu xam ba bi safar ñëwee ñu koy dundal ci ay mbir malheureusement nag mag ñi dañoo jëloon safar comme ni ma leen ko waxoon indi fi ixlaas indi fi tawxiid indi fi tawakkul yooyu lañ doon bëgg dundalaat waaye li garaaw ci affaire bi mooy léegi dafa am ñu revendiquer ni ñoom mag ñi lañ fi nekkal léegi coono ba mag ñi daan daj pour indi tawxiid indi ixlaas indi tawakkul ñoom ñu ni mag ñi lañ fi nekkal di fi jële tawxid di fi jële ixlaas di fi jële tawakkul te ñoom ñooy revendiquer revendiquer mag ñi moo loolu mooy suñu problème léegi nag yàlla yàlla di kaas kaasu yàlla nag bu naqari mooy wane ak baadoo la doomu aadama yàlla nee na wa ida dukira allahu waxdahu shmahadat qulubu alladina la yuminuuna bil axira yàlla mooy kaas de kaasu yàlla na du xol bu naqari mais wane baadool ak aji baadool wa ida dukira alladina min duni ida hum yastabishirun yàlla nee na am na ñoo xam ni nee na waa ji nga xam ni yow yaa yor lépp waaw maanaam koo xam ni yaa yor yéppam bala ma firi aay bi maanaam nga dégg koo xam ni yaa yor léppam léppam te fu la taggee fu ñu la tagge mu am maanaam mu dérangé wu yàlla nee na xool leen ko waa joo xam ne yaa yor léppam mais fu ñu la tagge fu mu dégg ñu tagg la rek mu dérangé wu mais fu ñu la waxee safaan ba fu ñu la fu la xase nee na mu mu mu mu bég waaye est-ce kii gor la déedéet yàlla loolu lay wax maanaam foo la ci aay bi mu ne am na ñoo xam soo leen indi leen tawxiid indi leen ixlaas indi leen tawakkul ndax loolu mooy tagg yàlla jox ñu cër yàlla buñ cee raxas dara nee nga gis ñu genew dama koy wax benn waay ma ni ko xam nga Sénégal dañoo gëm seen bakken te gëmuñu yà gëmuñu sëriñ si ba pare nag bu gëm ni ñoo gëm sëriñ si Sénégal quatre-vingt pour cent yi di nekk ci kër sëriñ si di daanu gëmuñu tos waa logique rek la Serigne Saliou Touré dafa ni Serigne Touba moo ko feeñu ci rajo la ko wax ay audio yu tasaaroo ni ko bàyyi li ngay wax nit ñi waxloo wala lool li ma la waxloo nit ñi nee leen nañu jaamu ji yàlla xam nga loolu bari nga ñu ko dégg jàpp ni ay murid sadiq la ñu te yëngalu leen dara wu leen au dañ koy déggal sax. te waxu sëñ bi la ndax loolu da ko wax nii rek pour dëggal li moo teg mais texte bi mu wax moo gën a moo gën a moo kii sax te pour dëggaloon texte bi rek moo tax mais tey ji bu jóg génnoon bu essayé woon rek génn jël benn audio génn ko di léegi sëñ Touba feeñuwaat na ma nee na ma bu kenn jaamooti yàlla yéen ñëpp a gis nga ñëpp a yuux waa léegi nag est-ce que loolu yow sa bakkan nga gëm wala seen Tuubaa nga gëm loolu ma bàyyi naa leen question bi ngeen vérifié ko moo tax Sénégal seen mbir dafa doy dañoo gëm seen bopp ba pare bëgg ko jël seen gëm bopp boobu tuddee ko sëriñ si waaw léegi yaa bàyyi nañu yàlla sax léegi mais sëriñ si lañ koy teg léegi heureusement waaw parce que yàlla ñu waxaasoon mooy nee na ñi nga xam ni dañoo bëgg a jël leneen gëm ko ba pare bëgguma ko tuddee ñoom léegi sëriñ si la ñu nax. sëriñ si la ñuy wax ne gëm nañ leen mais seen bopp la ñu gëm mais tëddee ko si kër sëriñ bi waaw boo tuddee lu leen neex ci tuur sëriñ bi ñu yuuxu bëgg biir yi waaw fekk dara saway seen bokkee rek lañ gëm ndax boo fekkee da ngaa gëm sëriñ bu la sëriñ bi ne jaamu ji yàlla doo fa taxaw di hésité da ngay taw jaamu ji yàlla mais fekk fenn rek nga yuuxoo bu la sëriñ bi ne saway toogal naan ataaya boo ëllëgee maa leen dugal àjjana nga yuuxu waaye bu la sëñ bi bu la kenn raw ci jàkka ji nga daan ne tekk moo tax mag ñi safar li ñu ko tege mooy ñett yi kenn ku ci deful loolu it defoo dara lu ñu xam ci kenn nga nekk te boo ci génnul ba dee gisuma la mbaaw waaw nekk fii nag di yuuxu ci mbedd yeeg di ku takkal nit ñi yooyu du safar yooyu sëñ Tuubaa sant ku kenn sëñ Tuubaa li mu sant mag ñi li ñu santoon nit ñi ci safar mooy al al ak tawxiid wéetal borom bi subhaanahu wa taala ci wax ak jëf nangu ko jaamu al ixlaas sellal ko ngir moom def ko ngir moom jëmmam ji rek ndax mag ñi loolu rek fi nekkoon waaw am na xissa boo xamante ni dama koy leb ba suba ak jàmm yàlla ñu bàyyi bu pour wan ni mag ñi yàlla rek lañ fi nekkoon yàlla ñu yéen yàlla fayal te yàlla may ñu góorgóorlu topp ci seen i tànk te sellal ko yàlla ñu ko yàlla defal asalaamaaleykum wa rahmatullah